man sëriñ Jili buso sëriñ Jili Bousso fii ñu nekk nii ci daara ji moom ban quartier la ci Touba. nekk ci quartier fu ñuy wax Aliya. Euh, tey ñu ngi fi gis ay médecins yu ñëw fii ndax mën nga ñëw dikkal ci ñoom lii xam ne fi indi woon. maanaam xanaa faj dongo yi xool seen wér yaram dina ñu faj la jox la ay garab laaj ci dara ngir ak Touba. kon nag euh, ñu ngi ciy sant bu baax di sant kilifa gi nga xam ne moo leen fi yebal euh, docteur Ablaye Niang ñu ngi koy sant sant koo xam ne si am na tàmbali ci amu fu mu yem ndax euh, lii réew loolu fi ñun ndax ñun dañu amul dara lu may Serigne Touba te Serigne Touba amul dara lu may alxuraan kon nag képp koo xam ne si def ni yaakaar na li nga def ci loxo Serigne Touba nga ko teg. kon nak eh, sëriñ bi nga xamee ne moom amutoon dara dul alcorane ca kenn musta nang gis mu nangu dara ci loxom dul alcorane li nga xamé moy mi bitam ak bëgg-bëggam yalla ko sumaram jappalé defal ko ci ndam barke sel khadim barke sëriñ touba taxa sar eh, boko ci médecin yi ñëwoon fii ci consultation daara yi waaw mën ñu digal ci pathologie yi nga xamné gis ngeen ci biir waaw fii nag liñ fi gëna sétlu moy paludisme waaw pali moom moom lañ fi gën a ma moom lañ fi gën a seetlu donte bariwul nag parce que dong boo leen xoolee nii rek xam ne ñu ngi en en bonne santé wax dëgg bariwul feebar donte heure bii nag dañu dañ daan seetlu lu baree bari ne diggante ci daara yeeg diggante Touba ak Mbacké maanaam feebar yi da daan bari lool dañuy naan tëdd dafa bari waaye nag xay na utilisation moustiquaire imprégné bi wàññi na jamono yi maanaam ci feebar yu bari bi ñëwee sax ñi ci gis ñi am ay feebar yu yu yu garaaw bariwul sax daanaka ay ñett ñeenti nit rek lañ ci am ñoo xam si ni présenté nañ fi ay pathologie yoo xam ne xaw xaw naa kii tuuti waaye taxu ko garaaw a part loolu moom wax dëgg yàlla euh, consulté nañ leen consulté nañ dong yëpp mais macha allah gis nañ gis nañ ne ñu ñu ci baree bare ñi wér nañ daal. waa quartier yi ni ciblé nag euh, xam naa ne Mbàkke moo koy gën a xam Mbàkke ak Alaaji ñoom moom ñooy xam quartier waaye man moom miinuma loolu quartier ñun dañ ñëw maanaam ñun maanaam Touba Mbàkke santé maanaam benn structure la boo xam ne dafa regroupé étudiant euh, docteur médecine képp ko xam resort Touba ak Mbacké nga dëkk di yëngu ci structure bobu am ay étudiants am ay am ay docteur en médecine amna ay pharmacien wa ñu ci bare bare ñun nak dañoo euh, ben association bi dañ dañu woon ngir ñu jappal leen en tant que doomu Touba Mbacké fi lañ juddo yaro fi jànge fi ba am bac dem université jàng xam-xamu médecine légui nak ñëwoon di leen jappal ci liggéey bi te yàlla rek tax. alaykum Serigne Mbacké Dieng la di secrétaire permanent bu Teranga Sénégal bu docteur Abdoulaye tey ñu gis la nga ak ay médecin bi objectif bi comme niñ ko bi bi rek ndax dafa ngir dimbale doomi Touba yi tey jii ñu jóg xool benn euh, niveau bo xam ne am na jafe-jafe muy darai yi biñ njëkkee jóg ñu xalaat ne war nañoo mën a xarfal ay ay ay ay dongo topp leen ba ñu wér waaye biñ ci waxtaanee ñi nga xam ne borom daara ñu xamal ne waxtu wi waxtu jongal ay donga waaye li leen gën sonal jamono ji mooy siburu si kon li ci nyu ñun def nañ diagnostic bi xam lan mooy jafe-jafe darai muy problème mu kon ci lañ door a jógee nag comme ni mu ko doon defee ci yeneen banqaas yëpp muy wàllum ndox mi ak leneen ak leneen ñëw tey ci wàllum santé ñëw ci ñoo xam ne aussi ñu jara dimbali lañ muy sëriñ daara yi ak donga yi nga xam ne ñoom lañ yar ku ne xam na ne wayjur yi ñu koy bàyyeek ñoom la ca war yëpp du mat kon tey moo taxoon président xalaat ne war na ñoom ma def loo xam ni dina leen dimbali soulager seen coono bi nga xam ne nekkee nañ ko ci w wér-gu-yaram rawat nawet nekk ku nga xam ne sibiru day bari lool ci jamono ji ñu ñi nga xam ne fekk nañ fi ñu si siburu euh, médecins yi faj nañ leen ñi nga xam ne aussi dara jotagu leen ñu def ay prévention ngir siburu bañ leen a sonal. ndax dafa am ay quartier yu ñu ciblé ci biir Touba. waaw amutoon quartier spécifique ñu ciblé li woon rek mooy daara yi nga xam ne rek daara yu mag la te ñu xam leen wala ñu xam seen i borom ak ñi nga xam sax xamuñu seeni i borom waaye xam nañ ñoo xam ne xam nañ leen ci lañ euh, dajale tey jii ñi am nañ ci mën ñeenti daara yoo xam ne donga yi nga xam ne ñoo fekk yëpp faj nañ leen ci suñu kemtalaay kàttan ci garab yi nga xam ne ëpp na valeur bu mille mu def ko ci ngir dimbale li nga xam ne mooy daara yi waaye loolu lépp rek day liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def nga xam ne Teranga Sénégal da koy def ndax dañuy wax ne ñun dañ daan jàppale koo xam ni du dëkk Touba bu paree rek day dem waaye nag ñu am léegi doom joo xam ne Touba la juddoo yaroo fi màggee fi muy docteur Abdoulaye Niane léppam muy Touba mu dellusiwaat nag fas yéene dugal loxoom ci biir Touba ci fépp fànn nag kon loolu mooy li nga xam ne mooy objectif bi nga xam ne ak uh, yéene ji nga xam ne amoon na ko te yaakaar naa ne dégg li nga xam ne ñoom lañ fekk muy sëriñ daara ak donga yi kontaan ci li nga xam ne def na ko tey waaye di ko ñaanal suñu borom li nga xam ne fas yéene ko ak dëkk bi nga xam ne ko ñu gis ne Teranga Sénégal depuis deux mois ba léegi politique sociale am dafa dafa mel lu mu accéléré ci biir Touba ana lu sabab Euh, xer buy tey sàkket da koy jege kon loolu mooy li nga xam ne jamono ji ci lañ nekk maanaam bëgg na ñëw jege askan wi ba saa yoo xam ne seen yitte yëpp ñu ciy taxaw ba ñun tam bu ñu amee yitte muy maanaam euh, élection jot li nga xam ne moom lañ doon doon lebal ci wàllum liggéey ak leen jàppale ñu a xalaat ne ah docteur Abdoulaye Niane kat ak Teranga Sénégal de yàgg na ñoo taxaw kon nag bu ñu ko joxee wala dëkk bi wala réew mi yaakaar jooju nga xam ne amoon na ko ndax gisoon nañ muy tàmbali liggéey bu am solo dañuy foog na rek dañ gëm ne dañ jàpp ne aussi liggéey boobu rek lay jeexal bu eggee fu mu war a